C'est une dame au parcours assez spécial, d'ex-pensionnaire de la maison d'arrêt pour femmes, sise à la Liberté 6 à femme d'affaires, et l'a traversée, un chemin parsemé d'embûches et de péripéties. Cependant, c'est aussi une dame de fer qui a su se relever pour ne plus courber les chines. Inculpée pour trafic de drogue, elle passe 4 ans en prison avant que la sentence ne lui soit favorable. Son séjour en prison reste ancré dans sa mémoire, mais cela ne l'empêche d'ouvrir un nouveau chapitre de sa nouvelle vie de femme d'affaires qu'elle allie avec harmonie à sa vie de famille, famille qu'il avait d'ailleurs soutenue. Awatiam, divorcée et mère de cinq enfants, se confie. Je suis ngi euh, Awa euh, vice présidente de euh, di présidente de jariñu ak et coordinatrice de bëgg sama suis man may dem camp donc man dañ ma pour trafic de drogue après ma def euh, presque 4 ans ma dem jugement ñu acquitté ma relaxé ma voilà donc loolu ma fa yóbbu woon. non ma dama naan activité yi ñu fay def dañ dañ lay jàngal mooy soo génnee nga am ci li nga mën a jàpp donc du question loo xam da nga am xaalis boo xam da nga koy génnee di ko yóbbaale. xam nga parce que kaso métti na métti na boo xamee ni nit ñi suñu bëggé top avocat yi ak lañ leen di fay des fois amana ci meew ak café lay yam xam nga donc loolu moy réalité carcérale bi lañ fa mën nak moy su fekkee par exemple am nga chance ay ay parents yu lay jox dara mën nga dugg ci kii yi fay am atelier yi fay am moo xam que soit en pâtisserie moo am transformation fruits et légumes moo xam céréales locaux yi amoon na fi itam atelier de couture donc na permettre jigéen ñi fay nekk suñu génne ñu am ci lu mën a jàpp et puis ça leur permettra aussi mu nekk euh, loo xam ne dama tax ñu mën passé seen séjour carcéral te du metti voilà donc euh, li ñu fay gën a am mooy daal xam-xam bi xam la nga xam so génné au moins di nga xamné na naa mën def li def li au moins réaliser mais par contre atelier bi ñu def fi dan bok que ce soit en teinture que ce soit en pâtisserie que ce soit en transformation fruits et légumes donc que ce soit aussi en qui bi defoon nañ fa aviculture bi donc man chaque fois mes atelier donc je préfère dem bok parce que ça me permet un peu ma mobiliser sama temps ba nga xamee ni en quelque sorte doo kii parce que day nek yo xamné so soo ci biti doo ko mën def mais soo amee chance foofu nga kay def do fay donc tu en profites. leçon yi ci tiré moy da ngay jang aduna euh, apprendre à moins juger les gens te xamoo leen parce que di fa gis façon bu ne xam nga des fois dañuy gis ay cas yoo xam dañ koy wané télé gaay ku ne di wax alors que soo amee chance nekk ki nga xam ne lañ ko jiiñ tu verras que. lañuy wax ak li am benn technique niñ koy caractériser ak caractère mi am en milieu carcéral du benn des fois day nekk nit ñoo xamé ni dañuy ils sont sans problème wala ñoo xamné erreur mo leen fay dugal xam nga duñu xam ba dugg fa itam euh, li nga fay gën a jàng mooy itam da ngay jàng cohabiter parce que euh, en milieu carcéral di nga ci gis façon bu ne beneen àddina la boo xam mais chaque fois dafa mel ni comme par exemple euh, rakku donc ay yeneen façon nit ñoo fa nekk ñoo xam ne bokku leen milieu bokku leen kii donc jikko yi du benn donc façon bu ne di nga ko fis ba nga xamee lu lay lépp loo xam ne dala daan nax avant di nga gis ne carrément naxoon na nit te duma dal donc danga ci jàngale àddina en quelque sorte beneen itam lim lay jàngal moy tu vas apprendre à te forger à affronter aussi les obstacles parce que itam façon nit bu ne di ko gis façon problème bu ne di nga koy ku ne di nga gis ño xamé ils sont sympas di nga gis ñoo xam dañuy bëgg ay problèmes donc euh, dañ li ñuy wax chaque fois dafa comme genre école militaire rek donc fam lo xamé na na am lo xam ko def ci yow. xam nga lool mo c'est un combat de tous les jours nek lo xamé nang kay nga tay mu jàll wala leneen ak leneen et puis ce n'est pas du tout facile parce que stigmatisation bi xam man ngi dañ ma acquitté ñu ma def ma dañ baye ma ñibi mais nit du lool la xamul wala même des fois da ngay xol amna ben commentaire je me rappelle Facebook su ma waxee da ngay je gaay da ñu dem di creuser ba xam kan la di réseaux sociaux yi xam nga. Euh, en pendant 4 ans restaurant bi dañ ko def ko sous fayu man bâtiment man mako mom mais bi fait moko ne comme fay ñu droit dañuy loy souf ci au début finalement fay parce que j'ai des charges euh mu tribunal il s'est basé sur mon passé carcéral pour me pour wax ne carrément dama bonne que dama demoon kaso donc nangam ak nangam heureusement que juge bi am la maturité bu toll ne mooy sama premier juin bu mu tëjee ben am côté bu mu tëjoon juge bi am maturité boo xamee dafa ne carrément que loolu c'est pas ça l'ordre du jugement mais par contre fu muy dem ba ci sa def ay intervention bi nga xam moom a lié ak de loolu lay jiital dafa une mauvaise personne nangam ak nangam les ba mu tribunal de commerce donc man man sa des mouvements donc ci donc sama kàddu fa xaaral ñu woo la nangam à ma grande surprise ñu rend décision comme quoi restaurant bi moom lañ ko jox te pourtant man bi may dem imaginer rek bi may dem bon man ma ngi dem parce que yone moma tey tay yone encore mo nang wat sama restaurant bi nga xam mako ko jënd sama xaliss jox ko keneen donc muy nek lo xam tout le temps te itam soo ñëwee tout le temps di wax même au niveau du parquet avocat parce que carcéral bi day ñëwaat comme si yow liñ lay jugé bokul ak nga xamante ne dafa le turiandé tay bëgg jël sa restaurant xam nga stigmatisation muy nek lo xam on les dañ koy dund tous les jours tous les jours du ñëpp ñoy am courage ne la carrément dugon na kasso xeex la.

donc muy nekk li nga xam ne da nga xeex tous les jours que Dieu doo toog te ku ko xamul rek wala nit koo xam ne dafa bëgg attendre tudd la ko te dafa nekk loo xam ne dafay metti nag parfois parce que ni ko waxee ka nga koy wax yow mooy metti soo nekkee militaire saxaal li ma a que ñi fa nekk ñi loolu la xalaat am na ñoo xam ne ko mën parce que des fois les moyens font défaut donc jéem naa réunir jigéen ñi fa nekkoon

voilà donc itam maa ngi ci tam euh, ci association kii yi euh, bi nga xam ne mooy bëgg sama rew bi nga xamé tay euh, lepp lo xamé ni day naxasal suñu dëkk muy Sénégal wala lepp lo xam day yàq donc day nek lo xam dañ koy combattre voilà donc jittina naa itam benen mouvement politique. non justice sénégalaise man j'aurais préféré que gaay gëna farlo en toute sincérité parce que des fois da nga nan nous avons une justice équitable que balance bi judiciaire nangam mais parfois.

soo xëyee suba nekk récidive soo tay dañ la amone pen nga récidive ñu delloo la ci kasso ba alors que ñom am nañ ci benn part bu responsabilité bu xamee ni ñom ñoko yox donc finalement da nga naan ban justice lañu am. amul ken joxuma dara du question du démanche intérieur du dara xam nga tay tam buntu bo fëgg ñi xolé bu bëtu détenu la woon té pourtant xam nañ né carrément que tu as été acquitté mais image bu dalay top xam nga itam euh, justice bi itam amna ci côté bo xam wax dëgg yàlla am ñoo xam dañuy liggéey seen liggéey comme il se doit mais erreur judiciaire day am kon dama naan chaque fois kasso ça dépend du directeur bu ko yox ak adjoint bi ak chef de cour bi su chef de cour bi deful liggéeyam correctement nek ko xam da fay yaafus wala ko soxo kasso bi du mën normal parce que lepp lu wara a lu bax lo xam day ñëw ci détenu len kay téré wala mu coïncide mais su dee compagnie parce que ma instant bi wax deug yalla sen adjoint baax na seen directeur baax lañu am

donc euh, soutenir nañma jappel nañma donc lepp lu ci wax que soit samay doom ma ginnaw ñom ginnaaw ñoom ñoo leen yore woon seen éducation ak yenn yi donc euh, itam kaso bi sama lek yi moo ko jël avocat yi donc sama ñom pap sama pap moko fay et puis chaque fois dañ ñëw visite donc c'est ça qui encourage aussi sama lek day ñeu donc j'ai pas de problème là-bas à côté boobu wax dëgg yàlla bima génné auti ñoma ñoo accueillir donc euh, soutenir aan ma sama papa jël xaalis jox ma ni ma bul baisser les bras il faut travailler donc ma commencé waat sama vie donc li ma leen waxee mooy ñu gëm seen bopp te xam nangu kenn leen toroxal itam bu nangu kenn yaakaar ne moo leen gën parce que jaar nañu kaso wala feneen ak feneen wala jaar nañ ci ay naqar nañu xam ne que la vie chaque jour c'est un combat waaw nit ki da nga naan carrément lii mooy sama objectif lii laa bëgg je vais l'atteindre bul gestu bul xalaat bul ragal ku la joxañ baaraam yow yow sa bopp soit qui t'avait ta conscience xam nga xam surtout li nga bëgg ndax li nga bëgg di nga xam fi nga jëm xam nga itam bañ a baissé ba des fois di nga am nag ay moment yu métti yoo xam ne doo bëgg dara mais il faut ñoom itam ñu jàng xeexal seen bopp parce que dama remarqué mooy jigéen Sénégal dañu am seen bopp yàlla yàlla mais yàlla dafa yàlla yàlla bay sa tool xam nga li am na loo xam ne dogal yàlla kenn mënu ci dara mais am na la nga xam ne soo ko bëggee bëgg ko def soo ko bëggee réellement suñu borom dala siy jàppale donc ma leen di ñaan ñu takk seen sër takk seen sër yi surtout jéem a liggéey te xam ne lu góor mën a jigéen mën na ko chaque fois gars alors que chaque fois mais dafa am instant instant temps da ngay raisonnable donc il faut qu'elle soit forte voilà te xamni ne liñ dama juste xol la pour xol pour euh, réussir voilà ok merci beaucoup Contana.